ngir war a waxtaane bunt bu am solo ci lislaam bunt bu am solo ci nekkiinu jullit di lu mënta ñàkk ci dunduk góor gi nga xam ne moom la yàlla dénk ñaari soxna ba ñeent ana naka la war a séddalee panaan mi ci soxna yi ci maandu ba ëllëg buñ demee ci kanamu borom bi subhanahu wa taala du bokk ci ñi sunu borom dërëb bu naan ci xadis yonent bi alayhi salaatu wasalaam man maala fi ixda zawjatihi jaa yowma alqiyaam wa shiqul ayman maailun képp koo xam ne dikk nga ci bis penc te soxna ci àdduna jàng kenn ca ñoom boo dikkee fii ci sunu boroom nee na sunu borom nee na boo dikkee ci moom genn wet ngay doxe sa genn wet geneen nga doo ko dekkiwaale mu mel ni séddaleem panaan moomu lañ bëgg a def waxtaan wi bu nu sunu boroom kàttane ñu defee ko noonu lu ci leer ñu sant ko yàlla lu ci leerut ñu jéggal nu la xam ne leeral moo nu taxoon a jóg mu mel ne séddale panaan moomu comme ni ñu ko waxee soxna su nekk am na ca xaq donte dafa tere ku joteeg moom maanaam donte maanic da am dafa am loo xam ne ci sharia boroom këram mënta joteeg moom niki moo armal aj wala borom këram ginnaawaloon ko walla lu mel ne pëy ma taqaloo li ñuy wax ratqa li fuqaha yi di wax ratqa wala moom i soccet ba borom këram mënta joteeg moom du tee faw ca moom lay fanaan séddale nag buñ ko waxee panaan mi la ñuy wax waaye séddaleeg jote ni ngay joteek soxna si aawo bi moom ngay joteek ñaareel ba far force loolu moom lislaam loolu lislaam santaanewu ko ndaxte góor mën na aaye fii am kàttan lool xëy aaye feneen te du am kàttan nam waroon a mën a jote dëgg nam jotee démb du ni mën a jote tey allahuma lu may góor gi daf koy def ngir lor jigéen gi masalan bu aawa bi aayee dana ko jox ak xam ba mat sëkk bu ñaareel bi aayee day mel ni ku tàyyeel ndaxte ñetteel ba xëy na moo ko gën a moo moom ca ca la bëgg gaaw a dem moo tax muy lëwal bànneexam ngir bañ a jote normal loolu moom dafa xaram moom la Cheikh Khalil di wax naan ka kaffihi li tatawaffara laddatuhu li uxra kooku moom dafa xaram dëppoo nañ ci su dee ki nga xam ne dafa wére di wére di xel kookee way juróom mooy topp kàttanam ngir mu mën a jote na war a jote naka noonu bu dee góor tamit bu àggee ci tawat du ko teree di wër su fekkee dafa feebar du tee ka mu jox ko aayam allahuma lu may daa dem ba mënatu ko ngir feebar bi sonal na ko kon bu boobaa lislaam daf naan ko tànnal fu la neex tànnal ci soxna yi ku la neex nga wettili ko ki gën a woyof ci ñoom nga wettili ko ndax yonent bi alayhi salaatu wasalaam noonu la defoon bi ko tawat ji sonalee ba mu àggee ci ñu di ko diri dafa woote ne dama gis ne Aïcha kat moo ci gën a woyof ma bëggoon a des ak moom ñu nangul ko ko kon loolu di tegtale ne dagan na su fekkee dem na ba yaram wa diis mu tànn fu ko neex mu mu neefa ba keroog tawat ja di wér ak ay na kuñ ci tooñ dangay perte maanaam borom kër bu jàlgatee ay kenn ci soxna yi kenn du ko ko fayaat su xasee jàll rek kenn du ko ko fayaat bàkkaar ba kay borom kër ba na ko jéggulu yàlla waaye doo dëppaat di ko delluwaat ak ayam di ko fayaat ak ayam kuñ tooñ ci ay jeex na ñàkk na sopp nañ tamit bu ñuy ay ayloo ñu tàmbalee ginnaaw timis maanaa bu jant bi sowee maanaa buy dugg ne kenn na tàmbali ci guddi gi maanaam ginnaaw bu jant sowee bu ñuy jullee timis ba pare fa lay ay ga waaye duñ bëgg mu tàmbali bëccëg sopp nañ su fekkee góor benn soxna la yor muy fanaan ca moom bañ a fanaani feneen ci moom liñ gën a sopp mooy muy fanaan ca moom ndax da koy wetti liwaale boroom kër gi nag su fekkee yàlla daa dogal ay gi di dox comme ni ko ko lislaam digale ba yàgg mu am beneen soxna soxna ba séet ba dañ naan bu dee bikkir la jànq la juróom fan la koy sañ may nekk ak moom juróom-ñaari fan bu dee jeeg la ñetti fan la koy sañ a may ci lislaam bu ko ko mayee ba pare ay ga day yàqu bu fekkoon ñetti soxna la yor ñuy ay ay loo mu amaat beneen soxna am ñeenteel moo xam ab jànq la wala ab jeeg bu dee jànq juróom-ñaari fan yi mu ko war a may bu dee jeeg ñetti fan yi bu jeexee ay ga day yàqu sañ naa tàmbaliwaat moom góor gi ci ku ko neex ñu déglu ma baamaat ko bu fekkee day ay ay loo ba am séet bu bees bu ca dugg ay ga day yàqu sañ naa dàgg moom borom kër gi ay ga tàmbaliwaat fu ko neex bu ko neexee mu tàmbalewaat ci seet ba mooy ko juróom-ñaari fanam ba mu jeex mu tàmbalewaat ci moom ngir mën a wër bu ko neexee mu tàmbalee ci ku ko neex waaye su tàmbalee ba mu mat sañatu ko safaani sañatu ta safaani ay ga ka ca topp rek ka ca topp juróom-ñaari fan yooyu ak ñetti fan yooyu muy may jànq bi ak jéeg bi sëyi woon masa am jëkkër du ko fay soxna ya ca des maanaam lam leen jox ba pare du ko fayaat soxna ya ca des borom kër bi soxna si aayewut maanaam ki aaye borom këram sëñ ta dugg ca wujj wa néeg wujj wa sëñu ca dugg sëñ ta taxaw ca buntu néeg ba sax lu may aaja ju mënta ñàkk lislaam danaan su amee ca biir néeg ba ay yére yum doon fóotlu sëñ naa taxaw ca buntu néeg ba laaj ko waaye imma di fa nelawee bëccëg ak di fa dalali gan di dugg ak ñoom di waxtaan ak ñoom ak yooyu ca néeg wujj wa ayut kooku lislaam daf ko koy tere dagan na tamit moom boroom kër gi mu gënale kenn ci ay wujj kenn ci soxna yi waaye na fekk wujj ya d'accord ca imma muy lo xamne da ko koy may wala yu mel nona waye na ca soxna ye d'accord buñ ca d' accord na naka so jigen sañ na gor di tak takk ko man kat dama la bëgg jox alal ngir nga téye ma bañ ma fassé lol dagan na ci l'islam man kat yaangi ni di ma tak waye dama la bëgg jox 1 million ngir nga ma bu nangu un million rek sañu ko fase ba bokk na ci yi nga xam ne dagan na jënd ak ay aw wujju jënd ak ay ci moroomu wujjam loolu dagan na dagan na aawo bi aaye tey ñaareel bi dikk ci aawo bi ne ko man kat dama bëggoon nga jaay ma sa ay dix mille francs ngi nii wala cinq mille la ngi nii mu ne ko indi eco d'accord naa mu jox ko ñu d'accord boroom kër ga d'accord loolu dara dara nekku ci sañ na ko jaay ayam kenn ci soxna kenn ci soxna yi tamit sañ naa nangu jël ay gi may ko wujjam boroom kër ga dem ca wujj wa fanaan fa loolu dara nekku ci daggan na waaye na fekk boroom kër gi nangu naka noonu ki aayewut borom kër gi sañ naa taxaw ci buntu néegam nuyu ko ne ko salaamaaleykum salaamaaleyki yaa soxna nangam salaamaaleyki yaa ndey faatu mu ne ko waaleykum salaam loolu na dara nekku ci bokk na ci dagan góor goo xam ne dafa doxe woon guddi kenn ci soxna yi aaye bi mu ñëwee ci guddi gi mu fëgg néeg soxna si aaya xëy na aawo bee aaye hmm? aawo bee aaye xëy na doon ko tàng jër mu fëgg ko guddi mu ne ko demal fanaani fa nga nekkoon ba bi te ndeysaan góor gi mënta fanaan ci saal bi ngir xëy na saal bi dafa bari yoo xëy na amul ventilateur xëy na amul mu sikkeer te boole naag tàng na lool ba mënu faa fanaan bu boobaa daggan na mu fëgg kenn ci soxna yi aayewut mu tijjil ko mu fanaan néegam waaye fi lislaam amee wuute foofu mooy ndax bu fanaanee ca néeg soxna soosu aayewut ci moom kim aayewut ci moom ndax sañ naa joteeg moom dara maanaam li boroom kër di joteeg soxnaam ndax sañ na ko joteeg moom am déet wala maa ngi def ñaari xaaj foofu ñii ne sañ te moom ndax moom kat daruura li ñuy wax lor moo tax lislaam may ko mu man faa fanaan kon sañ te joteeg soxna sa ndax soxna sa aayewut bés boobu tëdd rekk ko fa yóbbu na tëdd wala ci des daal ne ah nit kat comme que néeg soxnam la fanan góor kat comme que néeg soxnam la fanan kon bu boba sañ na def dara comme que l'islam may nako man fe fanan rek sañ na def dara ala kulli hal wote amna ci digeunte borom xam-xam fofu surtout ulama u Malik waye la gën dal xel fofu moy comme que lor mo la may nga fanan fa la dig do moy nga baña def mu baña def dara ba suba jot mu xey dem jema a soxna sa nga xamne mo bokk na ci li lislaam rafetlu tamit boole leen ci kër ci genn rëddu kër wutal leen kenn ku ne néeg góor ga mën naa am néeg di woo soxna yi ku aaye woo ko ci néegam loolu lislaam ba ba tey rafetlu na ko mën naa ne moom góor gi tamit sañ naa dolli benn fan ak ak guddi maa dañ naan lu ëpp benn fan ak guddi ndax neewoon nañ ne li gën a néew ci ci mpanaan ci ay dañ naan mooy benn bëccëg ak genn guddi waaye góor gi sañ na ko sañ na ko dolli waxuma la nag euh, su fekkee soxna yi dañoo lànk waaye sañ na ko dolli su fekkee dëppoo na ci ak soxna ya maanaam soxna yi nangul dañ ko ko bokk na ci li dëgganut ci ay soxna dugg ak ñaari soxna ci wanag walla salde bi ak yu ni mel di sangoondoog ñoom ñaar ñëpp futti ko ba set loolu lislaam daf ko xaraamal daganut imma nga dégg ci ne kon bu dee benn soxna dagan na ndax de ñëw na ci xaddis yu wér ñu ne yonent bi alayhi salaatu wasalaam moo ko Aysatu bokk nañ lenn ndab ngir sangu ba waaye liñ bañ daal mooy bokk ñaari soxna ci wenn wanag di sangu yow boroom kër gi loolu lislaam daganalu ko def xaram ba te bokk na ci nga xam dañoo dëgënut dañu koy tere mooy boole ñaari soxna ci benn laa wala ci benn lal ak lu mën a doon donte dañuy féexlu sax defuñu dara bokk ca tëdd rek daganut borom kër gi tëdd ci biir digg ba ñoom ñaari soxna yu tëdd ci wetam wër ko donte dañuy fo ak moom sax daganut moo tax Cheikh Ali ne walaw bi la wat in donte jote sax say amu fa sax loolu lislaam daf koy tere doon dañuy féexlu sax ne ci digg ëtt bi boroom kër gi lal matelas bi ne ca digg ba ñaari soxna yi wër ko tëdd ci matelas bi loolu lislaam da koy tere kon ñu bàyyi xel loolu bu baax ñaari ñi nga xam ne ñooy wujje jigéen ak wujjam waxoon naa ne sañ naa kenn ki sañ naa may ak ayam moroomam waaye bu ko ko mayee ba pare bu neexee borom këram mu lànk mu hmm? neexee borom këram mu tere ko daal ne man kat bëgguma fanaan ci kii tey ci kii laa bëgg a masalan bu doon aawa ak ñaareel aawa bi jël ayam may ko ñaareel bi borom kër gi sañ naa bañ ne man kat li ma sentir tey mooy fanaan ak aawa bi kan bu boobaa day day day dañ jigéen su mayee wujjam ak ay sañ naa sañ na caa deltu ginnaaw sañ na ko ko may ba pare deltu ca ginnaaw dara nekku ci surtout deltoo ginnaaw dañ ko koy delloo boroom kër gi su fekkee dafay tukki tukki bu mu mën a doon dañ naan sañ naa tànn ca soxna yooyu ku ko neex mu yóbbaale ko ba mu des tukkib xare ci lislaam ak tukkib aj màkk kooku moom dañ koy tegoo bant ndax tuyaaba jee bari moo tax sëñ tànn kenn rek yóbbu ko ku mel ne muxtaar la xam yi moom dafa gis ne dafa ko taawil dafa gis ne tukki bu mën a doon sañ naa tànn ko neex ko su doon moodu moodu ji di ngir wuti xaalis wala mën a doon ci mel noonu sañ naa tànn ko neex yóbbaale ko loolu waxuñu ko waaye soxna si su fekkee kenn ci soxna yi dafa jalgati maanaa dafa def lu dëpp wut ak yoon topp ndigalul borom këram ak yu mel noonu la lislaam digal boroom kër bi mooy mu waar ko li njëkk a def mooy mu waar ko lii nga def kat lislaam daf koy aaye nanga mën am su fekkee ñàkk julli la ak yu mel noonu daf koy waar dell ko ci yàlla su ko waaree delloo ko ci yàlla mu lànk mu jàjj ko maanaam mu tong ko tongu mooy mu bàyyee ko lal bi wala mu bàyyee kook néeg bi bañ a fanaan ak moom mu tëddee ci lal bi mu tëdd ca cat la bañ a jotee ak moom dara su ko jegee mu du mooyu ko wala mu abal ku néeg bi carrément fanaani feneen moom soxna si aaye islaam nee na su delluwut ginnaaw mu dóor ko su fekkee njort na ne nag dóoree dana jariñ dara moo tax Cheikh Xalil ne thumma darabaha in danna ifaadatuha ifaadatuhu ووعظ من نج من نززت ثم هجرها ثم ضربها ان ظن افادته افادته نكو وار بو باغي مو تونغوكو موتاخ دنج نان كو بوغوم جوتي بام أب كو بوغوم جوتي بام اوب مونو يار سا سخنا بالله بن خامي ليغا بڬ ليغا باغ تي لا ني bo beugé noppal da ngay mel ku ku bañu dara motax olof da nan ku beugum jote bam mu ëpp mënoo yar sa soxna ku beug doom ba ëpp mëno yar sa doom dóori nak l'islam indi na ko waaye dafa mel lu xew yi amatut bu jëk nga dan tok bam yag rek nga dégg ay jégg bu yu yuuxu ca kaw ñu né lu mu doon ñu né kër diwa ñepp daje fa ñu fekk goor guy door soxnaam léegi nag dafa mel ni góor ñi dañ ci am kersa waaye teewut mi ngi ci nas diine yi ba léegi su fekkee njort na ne dóor gi mën naa saafara dara rek dakkan na kooku da ko war a def ndax te dóor gi jubluwuñ ci lu dul góor bu demee ba yëkkati loxoom di ko dóor jigéen rek ah mooy am na lu ko naqari mu jarul di yëkkati gi rek doy na sëkk su amee rek lañ maanaam lam bëggoon am na. waar na ko nanguwut a dellu ginnaaw mu tong ko nanguwut a dellu ginnaaw mu dóor ko dóoree jëriñu dara wala mu wóor ni ko ne dóor yi du jëriñ dara xam boroom kër yu bari ni mel léegi nga xam ñimeetuñoo dóor seeni soxna kon bu boobaa na ko yóbbu ci mag ñi na ko wax mag ñi wala ay kilifaam wala xaakim ca ba muy am comme que amatul léegi na ko wax kilifa kilifa yi ñu waar ko ñu jàjji ko ngir mu dellu ginnaaw ca loolee mu nekk su fekkee waar nañ ko jàjji ko te nanguuta dellu ginnaaw ñu xool mbir mi nag waaye su fekkee ñoom ñaar dañuy am problème ñaari way dencante fu ñu toll di xulo yaa ma wax nangam ak nangam ak nangam fu ñu toll di xulo te kenn mënta bu boobaa dañuy jéem a defare seen diggante dañuy xool mag ñi ci koñ bi wala kilifa yi daje waxtaan suñu dajee waxtaan ñu jéem a defare seen diggante suñu mënta defare seen diggante ñu xool kuy tooñ ci ñoom ñaar bu ñu gisee ne góor gee tooñ ñu mag ñi dajaloo ne ko ah comme que mënatoo ko yorkat te gis nañ ne problème bépp yaa koy yaa koy yaa koy waral fase ko su suñu gis nee ne problème bi ci jigéen gi lay jóge su ko defee boroom këram bu ñu waxee moom defare defare defare mënuñoo defare mënuñ mënuñu koo defar moom sañ naa dajale mag ñi ba ñu dajaloo mu ne dama bëggoon a fase sama soxna bu boobaa comme woo ci seede fase soxnaam na dem ndaxte bari na ci góor ñoo xam ne nangu nañoo seede ca jàkka ja bu ñuy takk ab sëy waaye nanguwuñoo seede ak tas sunu bayaanu ajjuma boobu rek bi ñu doon def ci bunt bi am na waajuma ma ko laaj ku ne ma dañuy julli ajjuma pare nee na ma mankat li sama mbir mooy dama am sama xarit boo xam ne daf ma woo ci day ta day fase soxnaam waaye man daal loolu dama ko ñemewut a seete ndax lislaam dana ma ci topp dara ma ne ko aha kay lislaam dafa dafa digle ku la woo ci seede tas jabar demal waaye na nga njëkk a defar kon kooku euh, ñi mu woo nañ njëkk a defar ba pare buñ defaree mënuñoo defar sañ nañoo toog nag seede ko mu tax mu fase soxnaam kon mbokk julli di mbokk talibé yi fofu la yam ak yeen di sant ñep di gërëm ñep di wax ne lu jub ci kaddu yi ci borom bi subhanahu wa taala la lu ci dëng ci sunu gàtt xam-xam ak sunu ñàkk fasaxa moo ko waral walakin in uridu illa al islah mastata'tu wa ma tawfiq illa billah